aussi ak wafi bi euh, jot na fa jël li nga xamni mom moy coupe c'était avec la génération de Moussa Ndiaye ma diké Muntaaru Baldé ak le grand coach di Serigne Saliou Diaké qui est le coach actuel de l'équipe nationale U17 donc mom lañu dalal tay dinañ wax son parcours Philippe ñu ngi lay nuyu. non ma lay fay ma lay fay di content ci cette si bi. Mhm. Ah, li nga déplacer wu ak euh, bépp internet sa caméraman ak ñëpp ñuy seetaan 13 TV.

Judo ci famille football kat. Mhm. sama papa doon football. Ah sama nijaay man sama magi jigen sa dañuy football. Ah donc du coup <laughs> dimanche sax dañu doon jouer match ci. donc ma judo ci milieu bobu non, donc euh, mu don li nga xamé ni ki daal ba may gën a nekk xale kon lolu gën la motiver aussi nga dugg ci football parce que ñu bëri aussi dañuy am difficulté ño xamni ni dañ leen di entouré surtout si seen carrière nga judo ci famille football est-ce que lolu mo la motiver. waaw man man mo man mën naa ne moo motiver mais après bon comme on dit parents. sénégal yi moom xam nga. Mhm. waaw du du mu daal mu dem ci dara rek ñu kii la début bi métti woon na. parce que mhm. parents yi dañu daan jàngal parce que après c'est normal tamit tu vois boo amee doom danga koy yow parce que xamuñu woon football lu mu lu mu avant xamuñu woon loolu en fait. donc du coup boo jàngal ama léegi bu jàng bi doxul mais man moom dama ko doon naan. man moom da nga may jàppale damay damay fubal. daanoo leen nax parfois di di war a jàngi daw dem entraînement. waaw loolu moom ci laa dëkk moom man sama prof yi am ñoo xam ne moom ñu woon sax gis. <laughs> waaw <laughs> su ma ñëwee def rappel moom bañ ñu am Philippe ba mu wax sama tour moom après damay tëbaat dem fubali de. ok waaw. aussi euh, ñu xam la ci euh, nawetaan yi nga toj ko lu ci mel ne ay West Foire ak yeneen. Euh, mhm. dëkk mën nga revenir un peu si sa carrière ci nawetaan bi. waaw wala nga ñëw HLM Grand FC. waaw nawetaan bi moom Sébi laa commencé tamit Sébi. foofu tamit jël naa fa ay trophée Tëngéej waaw parce que boo daan joué département da nga dem Tëngéej a affaire noonu après ci laa ñëw fii nii Ouest Foire après ci la ma yàlla booleeg sama grand bi fu ñu nekk nii Alioune Fall parce di profiter au passage di koy remercier mhm. waaw parce tey jii comme on rek ginnaaw yàlla tamit moom la wolof di naan bu feccum liir neexee. waaw nga ci mbagg yi kon nag waaw moom moo jàpp ci mbag yi ak euh, sama grand bi grand Azou. Mhm. di leen di remercier bu baax a baax. après ci la ma woo ah, damaa bëgg nga jouer ma fii ma ne ko am problème ci la commencé fii nawetaan fii mosuñ jël coupe bu may doog a ñëw ma ne leen da ngeen jël coupe ñu ree man ñëw ma fii pour ay ki mhm. dinaa jëlal coupe après yàlla def ma jël ma jël coupe fii nii. après dem après ci laa ko jaar. nga ñëw ba ngay jël coupe bi aussi euh, mu nekk une fête nga ñëw gëmuñu ko woon nga gëmloo leen ni parce que ñëw nga ñëw pour def benn passage mais ñëw nga gëmloo leen ni euh, da ngay jël coupe moment boobu naka la ko euh, gox bi doon dundee. non début bi gëmuñu ko parce que comme on dit ñoom dañu naan naan am na jour yu nekk yu bëri fi jaar mais kenn mu ma leen man ñoo ma fii pour ñi fi jaar ak kii ni bokkul. damaa ñëw dinaa jëlal ko. ambition yi du benn waaw bu may doog a ñëw suñu premier entraînement laa leen wax loolu. Mhm. ñu ci bëri gëmuñu ko woon après bu ñu jëlee mooy bu ñu kiiyee kii bi parce que après maa ngi terminé meilleur buteur meilleur joueur affaire yooyu noonu. Mhm. ñu ngi kontaan ah ñun waxoon nga ñu ko ma leen ah parce que damaa comme on dit rek. Mhm. bëgg naa daal man fépp fu may jaar ma fay ñu ngi di fàttaliku. ah kii voilà loolu daal moo taxoon. ok ñu xam la aussi si HLM Grand FC man en personne jot naa la seetaan foofu match yu bëri. Mm-hmm. Euh, sa vitesse mais sa ay but ci équipe ba nga xam ni moom moo nekk fële ci Grand Yoff di équipe Badara Kébé. Mm-hmm. yàgg naa la seetaan foofu nan lañ def ba récupérer ba repérer la si euh, équipe boobu moment boobu si euh, équipe mi ngi nekkoon en régional. waaw oui je pense que président yi moom moo woon woo sama benn copain Abo. Mm-hmm. ne ko daa bëggoon pour man ma dem foofu noonu. après bon jamono boobu noonu maa man ak sama grand bi ñi nga mun nekkoon di lijjanti. léegi on était pas trop chaud pour dem foofu noonu pour football. après mu ne ma bon grand bi moo wax ak moom mu ne ma am benn problème juste euh, demal. parce que mhm. joueur tamit entraîné salle ak compétition. bokkul demal nga compétir kon moom kii na ñëw na ba ci. ci laa dem compétir vraiment mu doon at bu tamit bu baax. at bu mhm. parce que amoon nañ groupe bi nga xam ne kii. comme on dit famille woon. te mhm. quand on dit famille vraiment famille la woon. parce que mhm, mhm. yow xam nga bu baax. li ma la waaw xamoon nga gisoon nga nu mu doon comporté woo gisoon nga nu mu daan àndee. te du doon àndu bi nga xam ne nii àndu naar fekk la ci dafa dëgg woon. xam nga ci biir terrain la doon ni ki ñi nga xamante ne. waaw parce que daf vraiment dafa doon li nga xam ne nii ki bu la ñuy gëm sax xam nga. xam nga kii fu mu nekk xam nga kii fu mu nekk te loolu. yaakaar naa ci football dafa dafa dafa jafe léegi daal. ok mhm. mu nekk centre formation bu baax nekk fële ci Grand Yoff mu nekk génération boobu génération boobu nekkoon génération boo xam ne ku ko seetaan day xam ni y a de grands joueurs là-bas donc ñu ngi leen félicité bu baax a baax ci seen liggéey donc dañuy ñëw aussi euh, ci sa carrière professionnelle. Mhm. nga dem en Europe euh, wane fa sa bopp donc mën na ñëw un peu ci sa. Euh, carrière professionnelle je pense que yaa ngi débuté en cinquième division. ñëw Ligue 2 est-ce que mën nga revenir un peu sur ça. waaw man sama parcours nag dafa xaw atypique daal dafa xaw a comme on dit dafa xaw a gaaw <laughs> waaw dafa gaaw comme on dit parce que mangi ngi 5e division pour mhm. may doog a 5e division fait qu'on a ça ñu commencé ñoom parce que maa ngi ak ban équipe euh, Montélimar ok fekkoon naa sax ñu yegg ñu commencé après man mangi ngi euh pour euh, may doog a yegg coach bi woo ma mhm. ma ah parce que coach bi dafa am commencé daan fii Sénégal mhm. boole ma ak moom

ay huit match joué dugal fay six buts, yakarna 6 buts six ah bon léegi ci lu gaw dal coach non non mhm. mu signé won wa Tour jënd ko. Mhm. wa Tour FC mu national. donc euh, Tour jënd ko mu woo mhm. ne bëgg nga parce que wax naa directeur sportif fa mu xol la. parce que am parce ko am problème man bu mo ñëw ci la mo ñu ma dem. commencé entraîné entraîné une semaine. dimanche bi ñoo match. Mhm. léegi moo def match match bu baax toog match bi dégg nga suuf woo ma ne ma da nga léegi ci lañ ci laa kii foofu noonu début bi mu maa doon amee problème papier mënu ma woon jouer bu sama problème yi euh, des huit match. Mhm. léegi sama premier match lépp ci laa ci laa joué des nag joué maa ngi dugal quatre euh, mhm. bu saison bi jeexee am club yu bëri ay Ligue 2 yi ma soxla woon ay Tour ay 3. affaire yooyu noonu genre. ak tamit national yenn équipe yu baax yi national mhm. léegi man sama proposition genre sama bos yi gënoon entre tour le tour le woon ak trois léegi trois beek yooyu noonu yëpp demoon naa ba xool installation rek yooyu noonu yëpp léegi li ma choisir euh, Châteauroux parce que genre foofu laa amoon garantie euh, temps de jeu en fait mhm. vu que maa ngi doog a il faut nga temps de jeu waaw parce que tu l'as signé Châteauroux tu mhm. l'as signé Châteauroux donc mu doon parcours bu bu gaaw bu comment dire bu atypique parce que ci six mois tambalé na division commencé euh, ligue de signer professionnel. Mhm. donc euh, da ci bu parce que tamit mhm. ak mais comment dire adaptation bi amateur 5e division en ligue 2 parce que ba nga moment adaptation na équipe parce que public bi du uh-huh. engouement bi du ben. waaw après j'ai eu la chance pour moi. ci équipe ma vraiment que lay taxaw surtout bu may yegg mhm. tour mhm. amoon ben ancien góor la woon sax mais joué na ay Lille war nga ko xam ay Steve Elana mhm. joué na mu doon joué bu mag am ay Distel Zola ñooñu moom damaa ñëw rek ñu ñu ñu koy waxatee ci wolof sax ñu ñu mettre ma ci seen aile quoi waaw ñu mettre ma à l'aise parce que comme on dit peut-être ñoom teel gis li nga xam ne ni ñu ci bëri gisuñu ko woon waaw voilà parce que yàgg nañ football am nañ am nañu euh, expérience. mu mhm. ne ñu ñu may conseiller di may ne day def lii day def lii xam nga Steve Elena moom ma njëkk wax ni kii genre day amal habitude mhm. sa temps nga seetaanaat mhm. di nga mën a gis li nga xam ne ki peut-être voilà amoon na fi nga xam ne ki paas nga fi que mënoon nga dóor wala amoon fi nga xam ne dóor nga mënoon nga paas. moom moom moo njëkk wax loolu après ci la am habitude boobu noonu di xoolaat sama bopp. après château bi tamit bu ma yeggee am naa fa ay ñi nga xam ne vraiment. Euh, Sénégalais la mais muy joué Guinée léegi. Mhm. dañ ma jël def moo comme seen bopp daal. donc adaptation bi moom ça va ça c'est bien. passé nga jógee Châteauroux ñëw ban équipe. Sport euh, des deux Turquie. mu doon at bi nga xam ne que tamit je pense que sama jeune carrière pour le moment mooy. at buma bu ma bu ma prolifique daal. waay gis nañu parce que je pense que tu avais marqué même 14 buts. ak 9 passes décisives. c'est pas évident pour un attaquant. Uh-huh. mu nek une année de réussite. pour toi waaw vraiment année boobu mom loolu na année boobu comme on dit rek attaquant day am fu muy tool fi nga xamé ni ki genre da ngay football sax da ngay sentir ni ki mm-hmm. tay da ngay tay da ngay dugal. Mm-hmm. du du dara genre mais day am fu muy tool tey jii confiance boobu nga àndal ok ba lépp lépp genre bii bal bi sax moo lay. Moi le wut oui Ah. ok Bon but nga marqué woon le plus beau but euh, de ta saison. je pense que bon ñu ngi war na mot ay ay mètres. Mhm. genre en dehors de la surface. c'est sa benn coéquipier moom mbëkk bal bi. Mhm. dévier ko bal bi ñëw ci man ma def contrôle orienté rek. enchaîné enroulé genre calculé wu moins sax enroulé bal bi dugg. mu doon bii bu rafet nag. mu nekkoon bu rafet euh, cette saison nga nekk Başakşehir. Euh, mhm. nekk fële ci Turquie en première division. sa saison ak équipe bi performance statistique de cette saison. Euh, parce que moom commencé woon nañ ko bu baax genre suñu premier match def match bu baax après contre Besiktas def match bu baax après comme on dit amoon na ay genre ay vagues waaw 11 titularisations voilà amoon na ay vagues parce que comme on dit rek affaire yi pour le performer pour nga gën a ce sa fangam coach bi nga xam ne kii genre da lay jox confiance boobu noonu. Mhm. tu vois parce que le taxoon bandir ma ma non parce que coach bi daf maa jox.

comme on dit man may ki nga xamné ki suma gisé ki nga ki nga xamné ki genre mën na ma ëppale na ma dara. Mhm. damay dem ne ko ah lii ak li ak lii genre damay dem dama bëgg jang dal man man may jour bi nga dama bëgg jang jàng. Mhm. su ma ëppalee dara rek damay damay bëgg jang toujours c'est la formation. voilà affaire yi moom ku ma di rek jàng du wees. Mhm. te tey jii di nek na fa ñi nga xamné ki genre. am nañ carrière bu exceptionnelle bu ma demee ba tey ji am chance di football ak aussi boo ko moom terrain di football ak ay bigliard donc sant yàlla ki nga xam ne daan toog di ko seetaan télé tey ji mu doon joueur bu mag. léegi nga dem ba boko ko moom terrain ba mu lay conseiller donc maa ngi ci sant yàlla parce que je me dis que voilà. c'est quelque chose de plus voilà ay année ci ginnaaw xalaatoo woon loolu genre xalaat nga ko sax mais bon. Mm-hmm. xamoo ni dinaa moo fit. ok waaw euh, cette saison ñu gis euh, y a deux euh, clubs belges yoo xam ne ñu ngi taxawoo pour di fëgg sa bun si mercato yi <laughs> mën nga revenir un peu sur ça gis nañu presse bi à la une gars yi ñu ngi si wax bu baax a baax a baax. mais bon xëy na xëy na grand azo xam loolu. mën na nekk benn équipe en troisième division ak benn équipe en cinquième division actuellement. <laughs> xëy na xëy na grand yi xam loolu man ah yëgaguma de wala wala Alioune wala grand Azou yëg loolu. ok man bon man moom maa ngi sama côté liggéey comme on dit euh, man daal maa ngi gérer terrain bi léegi ñoom lépp lu en dehors de terrain lépp luy contrat ak ñoom genre ñoom daal la kii daal après ñoom lu ci mën am dañ mën a wax. mais bon waxagul de xëy na dañoo gën a. tamit alors xëy na peut-être yëngu ko yëngu ko <laughs> parfois bëgg di wax ci transfert c'est normal euh, joueur ak <laughs> entourage. Euh, ñu si bëri sur le terrain entraînement yi moom la ñuy res mais peut-être entourage bi aussi ñoom dinañ leen jël dinañ wax un peu euh, sur ça waaw euh, mais aussi euh, est-ce que tu es satisfait cette saison ak ce club waaw waaw parce que parce que boo doon boo doon boo doon boo doon boo doon jox moyen si sa bopp ban ban ban ban saison nga def saison bu pas pas moyen mais bu bu passable daal mhm. waaw je vais pas bu passable parce que comme on dit xam naa sama bopp xam naa li ma mën mhm. Donc, euh, je ne vais pas dire que j'ai fait une très bonne saison, mais ça va. Apprentissage, la première année là, en Super League. Okay. Comme on dit, coach bi jot après woon comme on ki moom mu yaakaar naa mujjanteel moo moo gën ci lépp. Mhm. début bi commencé après mujj bi amoon na vague mais mhm. à la fin de saison genre ressaisir na parce que dem na ba xam ne kii booy bi dama ko war a football loo mhm. te saa yu ma dugalee damay dugal. mujj bi bu demee ba demi-finale euh, coupe turquie ma double demi finale finale moi joué titulaire donc je pense que rien que ça je me dis que voilà convaincre naa ko war ni début bi ki nga négligé mhm. xam nga valeur am léegi rek ok Santé yàlla bu baax sant mhm. aussi ku seetaan ay vidéo mhm. xam attaquant bu gaaw nga parce que lu rare lañuy gis si sa ay aspect euh, technique ak aspect aussi euh, tactique parce que attaquant léegi il faut nga gaaw. aussi am doole parce que gis nañ mhm. ak défenseurs yi léegi nii duñu leen may dara. Mhm. mais ku si ay lu bëri bëri. Mhm. nan liggéey loolu est-ce que aussi am nga benn entraîneur boo xam ne dalay travailler devant les buts euh, pour mën la permettre nga gën a mën a jàkkaarloo kan yi di mën dugal ay buts. waaw loolu moom man man ma man bëgg juste maa gën a bëgg loolu daal di di di di comment dire aller à l'information di bëgg xam bëgg jàng. parce que boo seetloo attaquant yi mag yi fi nekk ñëpp genre loolu moo loolu moo def seen seen identité léegi parce que dañoo dem ba dañoo miin comme on dit miin camp. Mhm. waaw miin camp attaquant yi xam nañu lu ñuy wax genre da dem ba da ngay miin camp. Mhm. boo lépp mais loolu loolu la ko may mooy travail devant les man moom dama moon coach bi nga xam ne que chaque après chaque entraînement dafa ma ne kaay. Mhm. fu ne genre pied gauche surtout pied gauche parce que dafa ma ne am nga pied droit ba pare Patrick euh, Webo. mu doon attaquant bu mag

ouais je pense que enroulé. Mhm. enroulé man moom genre rarement il dóor coup de pied nous moom dama koy wax mu ne ma non day coup de pied mais tellement que genre xam naa ne ki am force dóor coup de pied genre enroulé comme si que demain dóor coup de pied. Mhm. donc du coup et eh, comment dire dit formation donc def enroulé genre plat du mhm. pied sécurité. donc du coup ce ma demee ba am loolu. du ma fi nekkaat fii di di di ci comme on dit Thierry Henry mos na ko wax benn bés mu ne nit day liggéey li nga xam ne du sa mais nee moom da daan liggéey fortam mooy enroulé genre loolu lay gën a liggéey te man yaakaar naa tey man loolu laa ëpp lu may lu ma gën a liggéey woo fait sa point faible loo xam ne mën nga ko gën a renforcer si yow tout le temps boo jógee ci match am na ñoo xam ne tey dañ lay seetaan wax nga ko léegi uh-huh. am ngay entourage mm-hmm. boo génnee si match am na ñoo xam ne aussi dañ lay naan war nga mën a gën a liggéey ci lii a performer fan nga foog ni aussi tey mooy sa point deux buts genre. Mhm. parfois c'est pas kii sax mais dama am tendance di di téye mhm. loolu moom la quoi. di waane waane lu téye waaw di a def ay kii nga ci te yow je euh, bu nekk rek ak heure am quoi genre mhm. na pour téye bal am na temps pour deux buts joxel nga bouger. te coach bu coach yu bëri dañuy wax loolu genre di nangu di garder lu bëri. genre nga joxe après. bés boo jaaxaloo attaquant bi défenseur bi voilà bu la neexee nga téye nga dindi affaire yooyu mais je pense que loolu tamit genre même su may seetaan sama vidéo parfois damay gis loolu que day am ay moments yi nga xam ne damay garder bal bi te.

ci euh, compétition boobu noonu. wa compétition boobu vraiment je pense que te tooloon na jamono bi nga xam ne Sénégal saa yu demee euh, final perte ko. bo mhm. bo boo lo si demoon nañ jeunes dem petite catégorie bi senior yi ñu perte ko. Mhm. légui même bu ñëw demee final ñu ngi doon naan non peut-être duñ. boobu maa ngi ndab li dafa mel ni ñëwagul woon waaw boobu maa ngi ko wuti ndab xam nga <laughs> gars ngi naan non peut-être ah dañuy perdre rek mais yalla def ñu gagner mu don tamit euh comme ni nga waxé Euh, tournoi bu bu bu bu bu bu baax bu neex. Mm-hmm, mm-hmm. parce que daje nañ fa comme ni ñu ko waxee lim la ci jour te jour yi fi lim lépp tey jii nii. gis nga fu nekk voilà ay Moussa Ndiaye ay Moustapha Naam. Mm-hmm. ay Madiké ay ama ay Mutaaru ay Dramé ay Ousseynou Niang Youssouf Badji ay Pape Seydou xam nga. di nuyu tamit coach bi sëñ Saliou au passage di koy félicité ci euh, coupe d' Afrique euh, championnat d' bi mu doon. ak petite catégorie bi mu doon vraiment sélection bu. Comment nga on dit sélection Sénégal moom je pense que boo tu duggee rek da ngay am plus que plus que. avoir beaucoup d'al, parce que des fois fa que famille xam nga ni ni ni après loolu genre Nous ngi déggante ñun ñëpp ay Moussa Ndiaye ñu ngi déggante gars nous ñu ngi vraiment lien, yi ñu ngi gën a resserré wu daal. mu doon compétition bi nga vraiment. Euh, c'était une réussite c'était une réussite parce que j'ai ko sa dëkk rek déjà. jouer sa dëkk rek pour sa dëkk. nga mhm. jouer sa dëkk pour sa dëkk sag la. Mhm. imaginer nga jël ko pour sa dëkk donc du coup mu doon li nga xam ne vraiment affaire bu bu bu kii la woon daal bu bu nice parce que sa mbokk yi sa famille frère ñëpp dañu ñëw seetaan si lu lu rafet daal. Euh, jouer dëkk dafa neex moom la bépp joueur. Euh, tey mhm. di rêver sol li nga xam ni moom mooy maillot équipe nationale euh, fierté la ci bépp sénégalais bi nga xam ne mi ngi évoluer à l'extérieur tey boo xoolee équipe nationale A bi. Euh, am nga ci ay rêve mais euh, li nga xam ne moom mooy poste attaquant nekk poste bu serré. tout le temps dama koy wax yaa Habib Diallo même euh, match contre Brésil bi mu ñu gagné ko c' est l' la plus titrée en coupe du monde le Sénégal dóor 4 buts à 2. ñu gis le doublé de Habib Diallo ñëw di wane boppam mais aussi ki nga xam ne mooy ay Nicolas Jackson Sadio Mané yàlla ba Iliman Ndiaye. Mm-hmm. Boulaye Dia euh, nekkon ci blessure dina ñëwaat mu nekk ay euh, attaquant yo xamni ni moment bi aussi dañ nekk di wone seen bop yow nga nekk attaquant. Mm-hmm. nan ngay préparer sa bop euh, pour ñëw ci relève bi. non ñu leen féliciter bu baax parce que comme on dit rek nit ki euh wax sa mbaxu morom taxul sa mbaax mm-hmm. euh ñu ngi def liggéey bu rafet. Mm-hmm. ñom ñep parce que comme kuñ kuñ kuñ xassa bo bo équipe nationale rek. euh amna li nga wone dal mo tax ñu wala mais man mom sama côté maa ngi ngi liggéey xam naa ni ki comme on dit foofu moom dinaa fa yegg bu soobee yàlla. parce que affaire bi du dara liggéey la rek. waaw liggéey la gëm sa bopp ak liggéey parce que fii moom dara kenn du fi maye dara daal bu la wooyee de yow yaay man maay liggéey li tax ñu woo ma. te xam naa ni ki genre bëri na gaa ñi fa nekk bëri nañu qualité bëri nañu ak lépp mais tamit bés bu ma yeggee rek dina xam ni ki ah ok kon.

mais bah, comment dire d'après les performances parce que c'est un sa vidéo tam xam ne daanaan nga. wa mais xam rek affaire yi mom nit ki. xam nga gars souvent dañuy wax équipe nationale. ku uh-huh. ñëw dugg rideau la uh-huh. mais jour bu ñu lay war nga fa dugg rek xëy peut-être def nga dara. Uh-huh. ñu ci bëri dañuy sétane seen vidéo sétane seen match. bëri na ay sénégalais yo xam ñu ngi à l'étranger. mais dafa am championnat yu rek yo xam mom lañuy suivre. bo démé peut-être en Europe Angleterre. Euh, France Ligue 1 Ligue 2 bi. peut-être ñu bëri loolu lañuy suivre mais bo démé Belgique Turquie aussi il y a des sénégalais qui sont là-bas. di def performance yi duggal ay ngand bi ñu dañuy sétane match yi. est-ce que foogoon aussi aussi gars yi war nañ a ñëw coach bi aussi di euh, suivre yenn euh, championnat et pour moi may aussi yenn jeunes une chance. ouais je pense que coach bi ngi mu ngi gis lépp de mon genre mu ngi c'est ngi championnat peut-être que euh, moom ak staff nu ñuy kiiyee la en fait genre nous nous nous nous nu sélectionné mais je pense que tey ni ni nii. ñaata jour lañ jël lañu wooyee Turquie ay Mbaye Diagne woo nañ leen Turquie ay Mambamba Thiam ay ama ay Alsan Ndaw donc mu ngi seetaan lépp mm-hmm. mu ngi seetaan donc ak moom Modou Modou Fall waaw ko Kassim Bacha am mhm. donc ça ngi coach bi mu ngi bàyyi xel ñëpp. Mhm. ki moom yaay liggéey li tax ñu ñu ñu woo la daal. Mhm. nit ki bi yow yaa koy liggéey yaay wax coach bi ah. man na jot na nga woo comprendre man tey ji man a liggéey li tax man genre moom moom dina ma donc nit ki foofu laa waxee daal liggéey la daal man daal dinaa dinaa dinaa dinaa gën a yokk. liggéey ba. comme ni nga ko waxee bés bu ma yegsee. gën a yokk cere voilà voilà bés bu ma yegsee ñu xam ne ah ok kon ki yegsi na. fu mu nekkoon daal te yaakaar naa ne looloo looloo daak genre nit ki nga yegsi ñu naan ah kii fu mu nekkoon que nga dugg génnaat gars yi fàtte la. Mm-hmm. te pa ñaanuma fasciné wu ma sax dugg génnaat moom. Mm-hmm. waaw kon nag. bu duggee daal di nga marqué emploi duggee moom waaw bu ma duggee dinaa fa sax de. ok waaw loolu loolu mooy yéene bi daal. sant sa bopp waaw maa ngi sant yàlla. sa objectif. bi mooy comment dire doon doon ki nga xamante ne ki ñu ñëpp nañ ci genre carrière jël ay trophée waaw comme jege wala raw comme tey ji suñu idole bi ñu ñëpp Sadio Mané mhm. parce que tey jii nii je pense que képp kuy sénégalais booy wax moom ngay wax mhm. parce que moo fi ki nga xamante ni tey jii nii nii waaw yàlla moom la fi teg ki nga xamante ni ki pour mu won ñu yoon bi la tey jii am nañ ñaan nañ yàlla dem jege ko wala ba romb ko sax mhm. waaw muy ci plan Euh, national international pour plus surtout lu mu andil Sénégal ñun tamit ñaan Sénégal coupe d'Afrique mm-hmm. pourquoi pas dem coupe du monde Ligue des champions jël ak club yi vraiment moom daal tey jii mooy ki nga xam ne suñu idole Philippe donc euh, TV day am contentement aussi euh, dalal bu a un grand attaquant équipe bu mu jaar bu nekk rek marqué na fa empreinte empreinte nag boo ko déggee mooy attaquant dafay dugal bu dee défenseur day défendre mais attaquant dugal lañ ko xamee attaquant dafay wane boppam boo xoolee seetaanee ay vidéom mu nekk jour bu gaaw jour boo xam ne nii bu jàkkaarloo gars sax da ngay naan kii surtout sur le plan physique ah, physique bi dafa yéeme donc moom la dalal tey di ko remercier bu baax a bàyyi la aussi nga tàggatoo ak mbokku internautes yi ñuy seetaan sur lu lu neex parce que maak yow moom gëj nañoo. waaw waaw seen sama waay gal loolu yàgg na. <laughs> sama nit nga vraiment mu doon ay at yi yoonu gisante nga seet si ma tey ma kontaan ci torop. waaw di lay remercier di remercier sa caméraman bi nga àndal di remercier képp kuy seetaan 13TV. Mhm. waaw di leen di jaajëfal bu baax parce que gis nañ li ngeen di def. waaw di leen wax ni kii liggéey bi rafet na yàlla na leen yàlla gën a taxaw. Mhm. waaw gën a yokk lépp vraiment. di nuyu képp kuy. kuy kuy kuy kuy bëggee Philippe. xam nga bëggee 13 TV vraiment content nañ ci lépp. alors merci beaucoup Philippe donc moom la dalal euh, nekk un grand joueur euh, kenn dootu ko présenté di la wax aussi euh, bonne chance ci sa carrière merci beaucoup gëm ko rek affaire yi wax nga ko sànq nee nga amul secret Aliou Cissé mi ngi seetaan ñëpp donc ku liggéey rek ñëw équipe nationale affaire yi amul secret équipe nationale pour ñëpp la talent ak performance moo fay indi joueur yi boo xoolee aussi joueur patience dafay baax ci moom bu ngeen gisee fi mu jaar dafa xaw a gaaw cinquième division en six mois mu ñëw Ligue 2 loolu du ñëpp ko mën a am ñëpp ko mën a boo seetaani boo xoolee yenn joueurs yi xëy peut-être seen carrière li mu am nii du ñëpp ñoo koy am euh, mu nekk euh, loo xam ne dafa gaaw mais gaaw boobu yëpp liggéey rek moo ko moo koy maye joueurs yu nag li yàq seen carrière mooy yàqamte bëgg nañ ko kut signé gis ñoo xam ne sax euh, dañuy forcer dem bi dem Europe bu demee quelque temps après ñëwaat mais dem da koy togg bam ñor donc di encourager aussi suñu mbokk joueurs nga xam ne seetaan hmm. di seen bopp mais aussi di la wax bonne chance ci sa carrière di wax merci beaucoup yéen ñuy la 13 TV donc nous lañ fait mois de vacances et joueurs yi nga xam à l'étranger nous avons di une visibilité nit ñi gën parce que xëy championnat yi nekk du ñëpp mais à travers cette émission euh, coach mais aussi euh, les amateurs euh, du football local que ce soit international aussi nous ko parce que 13 TV c'est l'international Les filles aussi on fait toujours les choses normales dañuy peut-être gars dañuy mais Euh, affaire daal fii xew xew donc merci Cheikh ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax merci merci Philippe.